normal boo xam ne yoon mi ngi fay dox ak yi ni mel ñu nekk ci veille pré électoral la ñu nekk fi mu toll nii pré campagne sax laay wax ñu xam ne campagne bi samedi incha allah le 26 la nar a tàmbali bu minuit jotee ñu dégg suñu premier ministre même su fekkee en tant que chef de parti la waxee mu annoncé ab meeting. meeting boo xam ne tey jii est-ce que mi ngi respecter norme yi nga xam ne établir nañ ko ci biir réew mi est-ce que moment bi moment wu def meeting la parce que munoon est-ce que warul woon mën xaar maanaam ba campagne bi tàmbali mu doog a mën a def meeting. non gëw ma ne ci législative yi situation boobu je crois. Mhm. am na defe naa xëy na man defe naa présidentielle mais des na na maa wóor te bëgguma wax lu ma. Mhm. lu ma lu ma wóorul sañ na ko sañ nañ ko sax. Mhm. parce que démocratie moom. en tout cas Euh, am lépp war na mën nekk ci wàllu jonganteeg yu kenn xamul. Mm-hmm. ci kaw rek ñu teg ko ci yoon. ci mm-hmm. waaw mën na nekk waaye nag euh, bu fekkee ni da nga nekk Masamba di ma Demba et da nga war xool léeg-léeg kañ ngay nekk ma Masamba wala kañ ngay nekk ma Demba. Mm-hmm. waaye mënoo foo toll naan ma Masamba laa. te fu ñu la fekk yaa ngi ci yaa ngi def jëfinu ma Demba <laughs> euh, ci waxin joo xam ne dafa xaw xëy na léebu rek. ma ma ma ma ma ma waxe ko noonu. kon nag. jub jubbal jubbanti bi ñuy wax mhm. defe naa ni yooyu ci parce que euh, Marie-Angèle de ndeysaan soxna Landing Savané mhm. maa ngi ziar grand Landing suma mhm. grand bu baax la suma kilifa la et Marie-Angélique euh, invité woon nañ ko suñu benn euh, symposium ci wàllu culture mu wax wax ju am solo mu ni réew njiit ya ñoom ñooy royukaay yi mu ni su njiit ya jubee askan wa am nañu chance ñu jub jubal mm-hmm. mais su fekkee ni bés bu nekk njiit yi ci parparloo ak leneen la ñu nekk et askan wa boo deful ndànk ci loolu rek la nekk rek la ñu nekk waaw donc royukaay daal dafa am solo jub jubal jubbanti bi nag ca kaw la war doore mm-hmm. balaa moo àgg ci suuf mm-hmm. lii daal la mooy li nga xam ne xëy na mën naa ko ci. <laughs> xam naa damay daal di génn rek ci li nga xamante ne mooy point boobu daal di wax si li nga xamante ne mooy fonds monétaire international. ak hmm. li nga xamante ne wax nañu ko tey ñu bëri jàpp ne dañoo ñëw confirmer li nga xam ne moom la fi suñu PM waxoon ginnaaw bi muy jàkkaarloo gouvernement bi di jàkkaarloo taskatu xibaar yi. mu ne nag Sénégal dañ leen jaay loo xam ne daanaka amul parce que ñi nga xam ne ñoo fi jógee dañoo yóbbu dëkk bi ci benn niveau de surendettement boo xam ne ëpp na loxo jéggi na dayoo ndax sax chiffres yi maanaam dañ koy maquiller pastel ko rosa ko euh, poudre ko ndaxte daanaka bu ñu lebee dix milliards dañuy ñëw ne trois milliards lañ leb set milliards ya maanaam dañ koy luubal ak yi ni mel euh, ñu dégg FMI mu ne Sénégal dëgg la am nañu surendettement waaye ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bi fi mu toll nii jox nañu leen ay directives ngir ñu mën a xeex ak loolu nga xamante ne moom mooy surendettement boobu ñu ci bëri di crier victoire jàpp ne dafa jox kii di Ousmane Sonko dëgg noo ko jàngatee. Euh, maanaam euh, euh, xam nga jàng jàng liir naa communiqué. FMI bi mm-hmm. xam nga communiqué FMI bi lan moo ci am solo. Mm-hmm. dinañu xaar ba Cour de comptes def certification loolu mooy li ci am solo ci ëpp solo. Mm-hmm. li ci des nag booy wax par rapport ak perspective yi. et wax nañ ñu ni déficit bi fañ ko nattoon ëpp na ko. ñun danañu ànd ak gouvernement bi ñu seet loolu. ak ñu ci war def. et ca gannaaw ga mu ni et déficit budgétaire bi nga xam ne dañ ko nattoon ci sept virgule cinq pour cent mhm. mën na am dana yokku ndax mhm. ni recettes yi euh, fina euh, recettes publiques yi baissé mhm. ak ni dépenses yi yokkoo man yàlla dimbal na may aussi économie laa jàng mooy sama spécialité kon nag communiqué boobu donc li ci nit war jàpp mooy daal euh, wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu dañ ma wax ba jotagul mhm. Ousmane Sonko mënoon na xaar ba cour des comptes certifié mhm. ay ay compte mhm. muy doga wax ca lolo dafa melni waaw waaw euh, kon nak ñun ba affaire bi ki man len limu wax deug la du dëgg mënuma wax ci lolo mais li mënu wax daayil moy man administration xamna finance publique xamna gestion état waye benn kuréel bi nga xam ne mën na ci budget finance publique ci le juge des comptes mm-hmm. mooy la cour des comptes mm-hmm. La cour des comptes boobu mm-hmm. certifié comptes à travers loi de règlement yi ba 2022, kon nag boo jëlee 2019 mais ba ba 2019 ba 2022 mille weyna deux loolu wéy na. Mhm. loolu jàll na. <laughs> Mhm. et aussi wax jooju ñuy wax lo FMI bu ko FMI waxe mom FMI day tuumaal boppam. Mhm. parce que fi ñëpp xam nañ ni ci walu finance kenn do fi def dara lo xamni ni FMI joxewu ci cardom d'accord na ci wala d'accord ci ben décaissement do am te ñom donc mom ñom seen bop sax tuumaal nañ leen ni ñom complice gouvernement bi la ñu woon. Mhm, effectivement donc lu mel noonu defe naa ni FMI am na prudence boo xam ne am na loo xam ne du ci dëgg FMI dafa mel ne sa banquier rek. Mhm. sa banquier balaa mu lay lebal. da lay jox ay conditions. Euh, euh, non balaa mu lay jox sax da lay saytu. Mhm. ba noppi ba xam parce que FMI li nit ñi xamul mooy. FMI mooy banque àddina bi. suñu réew yi xam nga lu mu lu mu liggéeyam mooy lan mooy fexe ba fu ñu toll. li ñu leb ñu mën ko fay. loolu mooy liggéey FMI. bu njëkk mooy lool. balaa leneen di ñëw. kon nag kooku bu demee ba ñuy dugal xaalis kuy dugal xaalis ci àddina si ci Sénégal. daa seet lu FMI wax ci réew mi. ci réew mi ba noppi. waaw maanaam FMI mooy tax euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci euh, les investisseurs yi nga xam ne ñu ngi à l'international ñu mën a jox réew mi crédibilité. ba am kóolute gu toll ni ñëw investir ci biir réew moomu. Eh, exactement kon FMI lu am solo la ci réew moo yore la moo yore balance des paiements. Mm-hmm. FMI y aurait surveillance multilatérale FMI y aurait peut-être correction à travers DTSI, mhm. euh, la situation entre les pays mhm. banque mondiale nous sommes spécialisés ko spécialisé ci plus lu développement mhm. et kooku mooy li les accords de Bretton Woods mooy li nga xam ni ci la àddina bi di wéy ba léegi kon nag boo et di nga am de voilà kon nak ci pour pour me répéter wu ci lolu mhm. waxu FMI dal xam nga luñ ci japp moy mom FMI. mi ngi xaar cour des comptes. Mhm. et mu génne ay certification pour que mom mu meuna wax ci lolu mhm. en attendant nak lii ñuy wax dana ci liggéey ak gouvernement bi pour xol na mu démé xam nga ko wax jooju sax dafa jaxasoo. dafa jaxasoo effectivement. est ce que président situation bi yëpp li ko indi nekkul tamit jël peut être ñi nga xamante si bi comme ni ko ñu bëri di waxee amuñu euh, xam-xam amuñu euh, li nga xamante ne mooy culture état xamuñu exactement lan mooy état euh, peut être ils n'ont pas pris le temps ñu dugg ci état ba xam état li muy laaj ak li mu laajul mais dañoo tëb rek laaj réew mi ñu daal di leen wóolu jox leen ko est ce que tam loolu du erreur boo xam ne jàppoon ne erreur la boo xam ne sénégalais yi def nañ ko waaw xam nga Sénégal koo xam ne mosoo nekk euh, conseil technique mhm. ministre mhm. mosoo nekk directeur ah mosoo nekk directeur général mosoo nekk conseil président mosoo nekk conseil premier ministre et ñu jël la jox la réew mi loolu mooy li am ci Sénégal kooku sax bën nañ ko d'accord waaye nag xam nga nit boo yar ak teggin dafa baax parce que moo lay may même boo xamul tekk googu ngay am ak euh, woyaf googu ngay am dana tax fu boroom xam-xam wala koo yaakaar ne xëy na ci wàllu wii kat mën na ma ci dimbale mhm. Mhm. daa dem ci moom mhm. déglu ko mu am lu mu la digal nga seet noo koy noo koy noo koy noo koy jëfee waaye nag duñu wax ci loolu parce que nee nañu askan wi mooy buur réew mi buur dëgg-dëgg réew mi mooy askan wi ñi ñuy fal mooy ñi nga xam ni ñooy jaamu askan wi dafa am xëy na jaam bu njëkk jaamu ñaareel jaamu ñetteel ba. ay catégorie de jaam <laughs> uh-huh. nag. Uh-huh. ñi ñuy jiital ci réew mi ñu ci bare. dañuy foog ni buur lañu alors que kii seen buur mooy mooy askan wi. askan wi askan wi tànn na leen. Uh-huh. bi leen askan wi tànnee mooy ñu nekk ci et soxla askan wi. mais boo yeewoo suba et. def li may tuddee le grand remplacement mhm. xam nga Zemmour day wax le grand remplacement en France mhm. mais fi au Sénégal amna le grand remplacement grand remplacement bi nak moy jël un état ni képp ko xamné ne la gis nga tok ak Macky Sall wala nga dem ci réunion Macky Sall wala nga djégé euh, ku djégé Macky Sall mhm. bo occuper fonction dama lay dindi quelle que soit ses capacités mais nee nañu Wood Woodside mi ngi produire cent mille barils. Mhm. cent mille barils la ñoo ko liggéey ay sénégalais yi fa nekkoon. teewul ñoo ñëpp raxas nañ leen jël ñoo xam ni xëy na wóorul ni. lan leen jox mhm. mënuñu ko. Mhm. te aussi li FMI di wax mais situation li ñuy wax ci économie xam nga économie dafa am li ñuy wax situation conjoncturelle maanaam loo xam ni mooy li ngay yor ci diggante euh, weer. ñaari weer ñetti weer begenda gën gudd ci at manam mhm. lu lu tolloog budget mhm. mais bi fi Macky Sall di joggé mhm. recette publique yi finance publique yi ak taxi mais wadul de 800 milliards motax tax mu ne Wow, bay un Sénégal vert waaw xam nga xam nga lolu su amé moy kat ñi yoré réew mi xeyna na ñu ci doxale té koku mu nit mënd ko comprendre bo yéwo suba le secteur du des BTP nga xamni tay ji li ëpp ci liggéey presque fa lay jógee ci secteur formel bi. Mhm. presque foofu chantier yëpp taxaw entreprise def ay ay ay chômage technique ak ay licenciement mhm. mën nga comprendre loolu. Mhm. boo yeewoo suba ñi nekkoon secteur informel bi nga dàq leen fañ nekkoon liggéeyatuñu boo jógee foofu lépp luy transaction en matière immobilière presque yi ci ëpp nga bloqué lu ko te parce que transaction immobilière yooyu ñoom ñooy permettre banques yi ñuy financer ñi bëgg ñu lebal leen. bu ñu lebalul nit ñi xaalis amul nit ñi investir mais réew mi du dox. du dox te réew mi nag. Mhm. comme ma disais un un de benn suñu professeur économie mu ni ginaar gi nga xam ne day nan wurus ganaar googu kenn du ko rey. mu ko ganaar googu kay dañ koy acca kaw. waaw boo na boo xojee nag ganaar gi nan wurus. Mhm. mais da ngay xoj réew mi. dëgg dëgg loolu mooy nag fi ñu toll. Mhm. et FMI wax na démb ci communiqué démbam bi ni réew mi am na une augmentation forte des dépenses. bu ne dépense dépense publique yi lay wax. dépense publique lay wax kon nag yow. Mhm. sa am-am ci recette mi ngi wàcc nga yokk say dépense mhm. kon nag yow yaa ngi crise de rax ci dolli bi nga fi ñëw ak léegi yàggul mais leb nga lu jege deux mille milliards. deux mille milliards. Mhm. ci diggante juróomi weer. motax tax efféminé réew mi mi ngi dem ci ay guddi yoo xam ne dina dina dina dina métti trop si ñi nga xamante ni moom mooy les sénégalais yi buñ ci jóg euh, non kooku jarul nekk jarul nekk njàccaar pour xam pour xam loolu mhm. parce que euh, réew mi annonce yi ñuy def ak sortie yeeg yi yow li tax Ousmane Sonko d'ailleurs mënul woon xaar euh, que Cour des comptes certifié mhm. parce que situation bi su génnul woon def génne boobu xëy na mën na leen coûter élection législative yi di ñëw mhm. moo tax mu ga kooku c'est une sortie politique da doon waaw lay sorti parce que. Mm-hmm, mm-hmm. FMI mi insisté waat na waxatul sax euh, euh, diminution des subventions ciblées. Mm-hmm. sur l'énergie, mais les dafa ni. diminution des subventions sur l'énergie, les FMI mi wax dans le général. kon li ma waxoon ni et yoko courant yoko gaz. yoko pétrole yoko gasoil ak yu mel noonu. Eh, fi FMI jëme réew mi ak di ko digal gouvernement bi mooy loolu. loolu la mhm. te te mel na ni gouvernement bi eh, eh, dafa mel na sañul bañ loolu. léegi nag dana metti bi dana metti bi xam nga mooy lan. Mhm. li ñuy nëbb gannaaw suba yooyu yëpp dana yokk. Mhm. gannaaw suba l'impôt yi ak taxes yi. dana yokk te xam nga. pétrole ah, boo dina yokk courant bi moom boo boo boo jàngee li ñuy wax comptabilité national en économie. dafa am li wax le tableau des des des échanges inter industriels ou tableau interbranche mhm. alors li koy noircir nak moy énergie mhm. énergie facteur la bo xamné ne laalé ko les pays ay yëngatu mhm. énergie bo yoké courant bo yoké essence bo yoké gasoil ah, moy euh, presque première euh, consommation intermédiaire pour wax comptabilité nationale euh, bi industrie d'utiliser. utiliser te loolu bu yokk lépp a yokk lépp a yokk dafay wàccaat ci li nga xamanteni mom moy day ñew sax ba ci d'ailleurs moo sa sax d'ailleurs bi ñuy def le euh, le le vision Sénégal 2050 mille dama wax sama xel sax sama biir mm-hmm. ma mais est-ce que priorité bi do won xeyna taxaw ci situation bi réew mi tollu mm-hmm. en matière de finances publiques mm-hmm. et en matière de budget est-ce que d'abord euh, bala nga naan naam dang fay né bala ngay wax waxu croissance wala régler les problèmes sur le long terme da ngay fexe d'abord ba stabiliser pays pays bi ba paré mhm. voilà est ce que war ñu imaginer un plan d'ajustement, puisque situation budgétaire bi ak financière bi graw na niñ ñu koy mhm. et ñu def taxaw boobu d'abord ba nopi waaw waaw parce que euh, koo xam ni da nga fébar et balaa ngay wax ni xeyna